la terre, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir produire. Mhm. alors Mame Birame. c'est que pour man euh, économie Sénégal. Mhm. mënul dox tant que secteur primaire bi joxuñu ko gën bi nga xamante ni moo war secteur primaire boobu mbay napp. Mhm. ak sàmm. volonté ñett yëpp wax ma ban la ci gouvernement bi def résultat boo demee ci àll bi dañ doon bayee sunu maam yi maanaam moos moos ak saret yooyu maam di jiital. moom lañ ci bàyyi bu dee doy wax euh, euh, jàll ah ah donc je disais que ah. euh, secteur primaire bi nga xamante ni normalement moom moo war a pousse développement bi état bi defu ci lenn agriculture bi wax naa ko la maam ya daan bayee bu njëkk boo demee moom la ñuy bayee ba léegi euh, élevage bañ naa ko ba ministre bi sax ministre de la tabaski laa koy woowee parce que suñ ko déggee rek tabaski moo jot mais pêche moo gën a tey garaaw parce que pêche Tchad bi ñu doon commencé di waxtaan léegi bi ñu doon waxtaan commencé waxtaanee léegi mais amul benn ouverture maritime Sénégal am cinquante kilomètres de côte. te li gën a garaaw Sénégal am ci géej gi loo xamante ne ni ëpp na sax suuf bi mu nekk muy zone exclusive économique boo xamante ne ni deux cent vingt kilomètres carrés moom la ñuy considérer comme eau territoriale lu Sénégal pratiquement soo fa demee les pêcheurs sénégalais dematuñ fa dañ koy weesu di dem ay Guinée Bissau di dem ay Mauritanie parce que foofu amatul jën li ko waral mooy Sénégal moo signé ay accord de pêche ak waxuma la France waxuma la Belgique mais ak Union européenne ñuy indi fii seen i gaal di buub lépp li fi nekk di yóbbu mais <laughs> yàggatul dara daa mooy nekk euh, plat national mais pas ceebu jën parce que jën bi kenn dootu ko gisati fenn pourquoi tout simplement parce que Sénégal def naa ay accord ak des dizaines et des dizaines de pays xam nga sax bu nekkee yow accord da ngay waxtaan ak France ngeen déggoo wala Belgique wala beneen mais ñoom ab union lañ dem waxtaanal signé ak moom ay accord yoo xamante ni day tax géeju Sénégal pratiquement dara du ci génn. teg si nationalisé ay bateaux chinois. bien mais léegi yow boo ñëwee agriculture bi doxul élevage bi ki ko géré ministre de la tabaski la pêche bi nga jaay euh, euh, euh, sa sa géej mais naka la développement bi mën a demee te li ci gën a tee doy waar monsieur Diakité mu ngi koy wax sànq. li nga xamante ni ñu ngi koy importer en matière de nourriture tey boo tëjee poor Dakar bii pendant six mois pratiquement Sénégal dootuñu lekkati pourquoi parce que tout nous vient de l'extérieur comme si ñun Sénégal amuñu ndox amuñu euh, suuf te li gën a garaaw xam nga moom mu ngi tudd Maroc di naan foofu la ñuy jëlee ay clémentine ak yooyu mais Maroc foofu la ñuy atlas yi foofu la gën a bëree ñoom maanaam terre bu plate sax boo xamante ni dañ koy bay da leen di të ñoom bu ñu demee ba mën a bay ba di ko envoyé. c'est parce que ñun li ñu waroon a def defuñu ko te d'autant plus que Sénégal dafa am phosphate boo xamante ni moo ko mënoon a permetre tey mu suqali mbayam de sorte que du ñu soxla di dem di jëndi lenn au à parce que lépp am nañu ko fii malheureusement loolu amul te du ñu ko wax nekkul ay chiffres yéeg yéeg mooy changer le de des Sénégalais. li maam Biram wax loo xamante ni c'est avéré la. secteurs yi nga xamante ni ñoom la ñu waroon gën a booster tey jii secteurs yooyu ñoom ñoo nekk au contraire euh, ci situation boo xamante ni mooy loolu. non moom laa doon wax sànq sama intervention ma ne ministre bi ñoom bu doon dañu bëgg dëgg-dëgg suuxat jàppale sénégalais voilà les pistes d' investissement yi nga xam ne bu ci duggoon euh, daanaka euh, sénégalais yu bëri daan ci gis seen bopp mais malheureusement malheureusement dañu am état bi nga xam ne dafa gëm recette fiscale loolu dans la mesure u recette yooyu moom moo koy permettre mu maintenir son train de vie tey bu doon dañu fexe ba que fii ceeb bi ñuy béy mu jóge fii Sénégal dëwlin bi jógee fii suukar si ak leneen ak leneen jóge fi c'est-à-dire loolu yëpp da leen di tere ñoom ñu am li ñuy wax ay recettes donc quelque part euh, c'est c'est un choix hein. c'est un choix bi nga xam ne dëkk yi nga xam ne ñoom décidé nañu faire tout pour assurer Euh, li ñu naan euh, euh, l'autosuffisance alimentaire dans leur pays mais ils ont réussi bi ñuy wax quand on rappelle historiquement que ay 1960 ñun ak ay dëkk yu mel ni Corée on était largement au-dessus d'eux et que tey jii ñoom non seulement ils sont dans le euh, dans, dans dans dans les pays de tête en matière d'industrialisation mais rax ci dolli Euh, ci wàllu euh, autosuffisance alimentaire ñoom la ñu waroon am am nañ ko quoi ba di jaay feneen donc ñun ñii tey ñun suñu problème mooy que on continue on continue jusqu'à présent malgré les dons du ciel mooy li ñu yàlla may ma Biram di ko rappeler chaque fois mooy ndox mi suuf si naaj bi et plus une jeunesse mm-hmm. ñun on fait fi de tout ça mais continuer justement et surtout cette jeunesse après ministre bi oh, dina continuer justement di pousser les les les sénégalais à importer à importer à importer à importer soo gisee ñu naan la euh, fan yi temps yi y' yaa y' a y' des mesures qui ont été prises pour réduire les taxes et consorts mais bon Dieu soo xoolee réduction tax taxes yooyu ñuy wax après nga xool les recettes les prévisions yi nga xam ne moom la douane fixé wu qui vont tourner autour de mille cinq cent milliards de francs CFA mais da nga naan kon ñoom réduction boobu ñoom lan nañu réduire. parce que bu dee déedéet parce que bu dee euh, deux mille euh, vingt et un bi douane mu ngi woon ci ay mille cent mille deux cent mu am ay réduction et tout ça ñu war a dem ay mille cinq cent donc réduction yooyu moom fan fan lay impacté cest à mm. ci kan lay impacté donc je dis que tey maa ngi koy fàttalee sànq euh, monsieur le ministre nee ko moom il a été coordonnateur du PRODAC mm-hmm. xam na un DAC quest que ça peut produire xam na un DAC qu'est-ce que ça peut impacter ci gox yi ñu ko def Mm-hmm. donc gox yooyu boo jëlee exemple dagg yooyu rek nga gis impact buñ positif bu ñu joxee ci dagg ci ci gox yi ñu leen installé mooy que su doon am na volonté ñu fair en sorte que foo tourner ci Sénégal ñu fekk fa un DAC ou bien ñu fekk fa un champ communautaire soutenu et entretenu par l'État mais tey jii li ñuy wax autosuffisance en riz dootuñu ko beneen bi nag mooy li ma mbiram mujjee wax mooy justement sunu mbirum géej gi parce que c'est une honte c'est une honte xam nga chinois yi nu ñuy def dañuy ñëw fii Sénégal ñu autoriser leen ñu ne leen bon am nga droit à deux navires ñu indi deux navires yi fii jëlaat deux navires yóbbu ko Gambie immatriculé ko Gambie indi ko waat Sénégal au nom des accords qui lient le Sénégal et la Gambie au nom des accords qui lient la Guinée-Bissau et la Gambie donc yooyu yëpp da ngay gis benn armateur chinois bu ñu autoriser deux deux deux deux deux deux deux deux navires finalement au bout du compte il se retrouve avec huit navires mais tey avec tous les milliards que la pêche génère la surveillance des pêches la surveillance côtière dafa mel ni ça n'existe pas alors que au même moment on nous dit et on le voit que le président a beaucoup investi sur justement l'achat de patrouilleurs sur l'achat de de vedettes marines et tout mais ñoom kon donc tey jii seen utilité ci biir géej gi mooy lan bu dee ba tey jii les gens continuent à piller nos océans mooy que quelque part y a une surveillance qui n'est pas faite bu dee nit mun na di dem immatriculé euh, gaalam Gambie tout en sachant que dana ñëw dugg ci Sénégal illég bon illégalement légalement parce que c'est au nom des accords qui lient le Sénégal et la Gambie ñëwaat napp si fii ñi bàyyi ko muy jël fii di ko déverser fële sans pour autant payer un franc c'est le Sénégal paye mooy maanaam y a une vaste chaîne de mafia autour de tout ça espérons nag espérons euh, monsieur le ministre monsieur le ministre oui, mais je dis espérons que cette fois-ci vraiment vous allez tout faire <laughs> pour que les Sénégalais puissent avoir du bon poisson non non non vous allez tout faire pour que les Sénégalais puissent avoir du bon poisson mooy que Sénégal man su ma jëlee sama gaal dem napp ji ma mën a jàpp jën ah déedéet <laughs> Pape Matar dañuy enchaîner ak yow damay damay damay parce que tey jii moom moo fi toogal gouvernement